te ya, bu soobé yalla dinañ ci and ak doomu Sénégalais yépp ya. loolu mën ta am tank taxawuñu ci xeex guerre ba pare jël lepp lo xamante ne mën nañ ko ci suñu katan suñu xam-xam and teg Sénégalais bëgg bokk ñun ñëpp ak liggéey bi pour tabaxat Sénégal goo xam ne kuréel nga ngànk bànqaasu réew mi muy institution yi dañ leen di dolal ba bu ci ne taxawé taxaway gi war di doxal li nga xamante moom mooy si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 taxaw respecté ay engagement la taxawé dëkk bo xamné woor ci jëflante ak mom la taxawé dëkk bo xamante ne fas lokolo ben benn dëkk bo xamante ne taxaw nga ci respecté coopération bo xamante ne Sénégal da ci gis bopam ñom ñom ji gis seen bop mu doon coopération bo ne dañoo respecté ci suñu aada ci suñu ciosan ak ci suñu jëmukaay té tamit doon coopération bo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 amna yu jàmp yu jàmp yo xamanteni war nañ ko war nañ ko jël en charge manam war nañ ko jël liggey ko ci lu gaaw gaaw muy wat sénégalais yi tabaxat li nga xamanteni ci lañ doon sukkandiku pour que Sénégal doon lu mu doonoon doon benn bop benn euh, rew mo xamanteni benn bop la té kenn mosu koo mën a gi fi commencé won ñu fexé ba lepp bolé wat ñepp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 biir coalition Diomaye président ay doomu Sénégal ñoo ci nekk ñu nekk ci beneen boor bi tamit di kujje gi ay doomu Sénégal ñoo ci nekk ku ci nekk jàpp nañ ci yàqin ne liy defar Sénégal moo la tax nga taxaw loolu nag dinañ ci ànd ak ñëpp waxtaan ceeg ñëpp di dalal xelu ñëpp ne lii nga xamante ne ñu ngi koy doxal naa ci ànd ak ñëpp ñu bokk ci kujje gi ñu bokk ci parti politique bi ñu bokkul ak parti politique bi pour ñu waxtaanee li nga xamante ne ñun ñoo ko moom ñoo ko bokk te mënuñu ko séddoo muy Sénégal di jaajëfal nag ñi ñu àndaloon ci élection bi muy ñu yore woon les leaders nu ma ko waxee sànq parti politique yépp ñu bokk ci coalition Diomaye président di di jaajëfal tamit ñi nga xamante ne ñu ngi àndoon ak ñun yore suñu kaaraange muy sécurité bi di jaajëfal tamit ñu nga xamante ne ñu ngi àndoon ak ñun yore communication bi wala ñu yore organisation bi ba ñu def campagne bu mucc ayib bu fépp fu ñu dem fekk fa ay Sénégalais ñu teertu ñuy waxtu gu ne ñu di leen jaajëfal ñoom ñëpp fu ñu egg fu ñu eggul te di réserver nag une mention particulière à un homme Je pense que je n'ai pas besoin de le citer pour vous. Oui, le président Ousmane Sonko. mention particulière Bob Makoye koy defal dañ ko ciy ndokkeel ci gis-gisam ci détachement am ci désintéressement am ci xalam bu ñor ak ci xalaatam yu rafet yoo xam ne moo tax ñu taxaw coalition Diomaye Président moo tax projet bi am candidat ba sénégalais yi amoon yéene jëmmal projet boobu ba xool promesse yi ci nekk yaakaar gu mu jur naka lañ ko fas yéene doxalee bu nekkon kenn ko xamantene rek day wax ne man kese budul dul man du doon kenen ci gannaaw kon lool du meuna am waye yemul ci loolu yemul ci loolu parce que dafa tak ndigam tak ay dalam sol yéeram yëndalul fanaanalul gudeg bëccëg subaak ngoon soit ñu and, soit mu jël axe ma jël benen axe muy battre campagne matin au soir 6 heures du matin ñu koy gis muy battre campagne 2 heures du matin ci bëccëgu ndar ci suba teel donc jaar na fu ne def na lu ne te lu ci nit ñi gis rek ci lu fës nañ xam ne lu ñu gis mu def ko ci lu fësul moo ëpp solo ci la waral résultat bii tey kon ko bañ beral loxo te bu ngeen seetloo saa yu may jëf prise de parole dama koy mujjee pour que nit ñi doon bu ñu dee tàggoo nit ñi nekk lu ñu mujjee retenir parce que bo bëgg naa bu nit ñi retenir dara ko loolu bokk loo xamante ne ci discours bi nu mu gudd gudd wala nu mu gàtt gàtt loolu du bokk ci lu ñu fàtte kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan may ko wér-gu-yaram ba yéene gi nga xamante ne ak ñu ci àndal yépp ci liggéey bi am na ko ci ñu mën ko doxal ci Sénégal mu Sénégal Sénégal bu naataange Sénégal bu bàyyee ko xel gën ko fonk ci aduna ak euh, ñu teg ko teg ko tamit ci loxo yoo xamante ay loxo yu wóor la combat yi nga xamante daan nañ ko xeex mu doon combat yoo xamante combat suñu génération la mais du doon combat prochaine génération bi parce qu'il nous faut avancer résolument vers le projet progrès économique social et culturel lii mooy kon li ma leen di déglu ci kanam maa ngi di sant bu baax di leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatulah